am faj ak ñaan mhm. da gis waa njare ñu ne askan boobu nga bokk nga doon ko war a def ci force mhm. wala da gis ñëpp di ko def nga ne xaaral nga def ko wala da ngay wut xaalis damaa bokk ci njare mhm. ah, nekk njare piir du ma njare foo njare original laa ah, njare foo dafa am la am na waaw ah, am sëriñ yoo xam ne njare foo njare foo waaw rab dafa nekk ci nit mënut a ñàkk ni yàlla suñu borom moo ko mooñaale te nit. Ah. nit mooy rab rab mooy nit. man nag rab naa ko naa ko faj loolu yàlla suñu borom def na ma si ak jagleel. Mm-hmm. ni ni ni ñuy sempee dëgg xam nga dëgg bu jamuti ñu koy sempee naa koy sempee te yow. Mm-hmm. amul lu ñu calmé amul dara. naan dañuy dóore rab ak yooyu rab nan nan nga koy jàppee ba koy dóor. non rab kenn du ko dóor. loolu yàlla suñu borom moo ko bindaale te yow. Mm-hmm. loolu nan nan nga koy dóoree. waaw dama ne laa lan moo tax comme ñoom maanaam uh, rab bi. waaw maanaam bëgg ku góor ki mu doon corom rab bi bëgg ku jigéen ki mu doon faram léegi te doo gis seen doom quoi duñ am doom ku ma sa secret ba rab yi yebuñu la ah xanaa te yeneen sëriñ si léeg-léeg ñu dof léeg-léeg ñu jóge ñu am problème mu la xanaa bàqara ba naase rek hmm. lépp ma wér ko te alxuraan di liggéey turu yàlla xam yoon wi koy jaarale bi leen di ba mu saf sap ba nit ki ku ko laal day mel balu teng si mu delluwaat ci kaw la laal yàqu daal dootoo gisate xam naa moom. kon <laughs> nit nga rey yow. déet mosuma rey. nit non non. loolu ba nit ñi du jàpp ne nga xaw soxor parce que wala gàllaajee foor du li nga nit ki moom li mu jàng rek lay tare. Hmm. kaaraange lépp kay kaaraange kër ak sa njaboot ak lépp. même hmm. kaaraange yi mën naa mën naa la kaa liggéeyal. moo tax ubbeeku bàyyi ak euh, wut liggéey. waaw incha allah rabbi képp kun ko jox doo am juróom-ñaari guddi. déggoo seen liggéey. te déggoo fenn liggéey te déggoo fenn liggéey waaw. yëpp képp dégg ñu naan ay mine bara nga fekk ay kaay nga mine baru ah, mille cinq cent wala waxoo liggéey yooyu. non liggéey yooyu moom mooy loolu moom. waaw loolu ca ngaay bu foor la. lu hmm. foor rek lay lu foor rek ngay am. Ah, comme daal moom nit ki mën na xëy jiite ay FIFA. ay waaw lépp kay mën kaa jiite ba si président sax. ba ci président waaw ba si mairie sax ba si député lépp mën kaa falo. Hmm. tey bu dee bayram mbooloo nga bëgg mën naa la kaa liggéeyal ba hmm. ba nit ñi di lay wuy si waaw bu dee tey bayre bay bayre jigéen xam nga gaa am ñoo xam ne jigéen rek la ñu wër jigéen rek la ñu waaw mën naa leen defal waaw mën naa leen defal bayre boo xam ne jigéen dañ leen di topp dañ koy topp waaw bu dee bu dee bu dee mu bàyyi woo ay ñoom ma diwoog yooyu xam naa li nga wax ci wóolu sa bopp lool a ci lool muy xeetu nopp nopp suñu borom def na ma ak jagleel ak jagleel waaw depuis bi may am quinze ans bi may nekk ci daara ji si am résultat résultat moo moo xon football <laughs> waaw ñaar yooyu moom ah. sama liggéey la woon moom bi may nekk daara ji ah. daaw jéeg rek jël naa si ñaari final ñaari final koo xam ne ay caaxaan moo lu tax jug moom juru nga may woo waaw ndax yor yor naa si nopp yoo xam ne liggéey liggéey yi ma si def moom hmm. caaxaan dindiwu ko te hmm. sum la ko defee moom toppante day day am waaw comme xaj bi muy borom nu mu nu koy toppee nu ko raw loola lay toppee waaw ndox moom ëmm ëmm ëmm saxaar yàlla yëmm yëmm seeg benn sëriñ la. léegi par exemple Augustin jëkkoon jëkk rek. noppal ma Mourinho ba mu nangoo ñëw yor Sénégal. te du bañ ko. ah bon waaw. parce que rasul Mourinho yor Sénégal. xertiir la xertiir dama koy xertiir te moom xam nga ah. lañ koy def. saa mu ba ay millions yu bëri ñëw fii di fa yokk ay. 10 millions 15 neex. ñi nga xam ne tamit dañoo am jëkkër bu nay. du joxe ñu hmm. bëgg noo nob bi tamit waa ji di joxe ak ñi nga am faru nay te du joxe tamit góor ñi nga xam tamit xale bu yor la ni wër quoi moom mu jox leen xeet googu daal vraiment saar gu bëgg yooyu moom nga tëddaaleeg moom waaw maam bu doon bu doon bu doon six heures lay xëy waaw mën naa xëy midi wala mu bañ a xëy te journée boobu loo ko laaj mu jox la ko ah waaw bu xëyul dina yor lu mu joxe. waaw ah. toog ba midi góor bu nelaw ba midi. koy koy koy def loolu loolu nga xam day fekk mu yor. léegi nag da ngaa beneen. boo xam ne day arrangé jigéen ñi ba léegi mooy ku bañ am wujj. na leen xaru jeeg ndox mu tàng ak yépp yow nga koy wax calmé wujj. calmé wujj ñaaroo rek ba kenn du kenn. waaw ñaata nga ah, jigéen ñi nag ñu war am ah, benn. waaw loolu moom. Ah. liggéey la mm-hmm. waaw moo xam lépp loo lépp looy xëccoo. bëgg see jot. moo xam kër mm. moo xam oto moo mm. xam place moo xam terrain moo xam chef de village mm. moo xam mairie incha allah rabi du am quinze jours te jotoo si waaw lay doon waaw euh, lépp loo xam ne ci jam-jam lay dox ba ci saaru xetu lakk-lakk dégg nag ci loo xam ne day jàmm incha allah yi soo ko soo ko takkee yàlla suñu borom dana si musal te da doo deeti lakk doo deete accident. xëy man ku ñu yoroon portable kay. moom kay suñu la fa moom day man a am xalwoo loxo. waaw day tàng mën naa si dara. seet tamit ay nga naa ko ba ba ma dalee seet ba nëgë ni musuma wax nit mun a mun a déedéet. waaw li nga wax rek gis naa ko laay laay dégg. ku bëgg sëy fekk un nga ci dara. mën naa si dara kay. ah bu sëy. waaw déggoo ma de càngaay yi ma su ma la ko defaree. waaw doo am 15 jours. 15 jours te commencé woo ngoro. xol ak fol mën nga ko ak surtout comme Dakar moom daanaka xëccoo bi fi la nekk ku soxla woon mairie Dakar pour jot ci. daa am sarax bu mu génnee. sarax bi ku ko njëkk a génnee rek da nga ko jël. sarax bu a génnee rek da ndomb ak raw sak maas. ndomb ak raw sak maas nga waxul waaw waaw. ndomb ak raw sak maas. ndomb ak raw sak maas. Hmm. képp ku ko ko ko koo maasal jamonoonteeg moom. Hmm. da ko da ko wan ginnaaw waaw. mais ba si jaaro sax am na. ba ci jaaro ah. am na jaaro xam jaaro bàgg lay doon. lay doon waaw boo xam ne pour pour pour wërsëg la. pour wërsëg waaw pour pour pour alal xaalis. xaalis waaw bi ñoo xam ne foo mën toll. doo foo mën di nekk doo tàggoo xaalis.